Euh, ndaje bi dañu ñew tay ci turu madame soxna Salimata job Dieng muy jorine bi yore walu njabot gi jigen ya ak xalé yi ubbi ndaje bu am solo bo xam ni projet bi ñuy wax pipadage mu jëm ci xalé tout tank yi ñu tagat len jox len lek gu bax ar len duggal len école projet bobu nga xam gouvernement Sénégal moko lal khatim accord bu reuy ak banque mondiale décembre 2018 lu tollu ci ñeen fukki milliards ak ñaar muy xaaliss bu takku bo xamni dañ ko duggal rek jëmele ko ci tout tànk yi ci Sénégal euh, projet bi nak ci phase bu njëkk bi manam ci dorté gi juroomi at la lalu dina laal juroom ñaari gox ay région ci Sénégal Djourbel euh Fatick Kaffrine Kaolack Kolda ak Tambacounda Euh, li tax nag ñu jël juróom-ñaari gox yooyu mooy dañoo xayma def ay xayma def ay gëstu dem ci terrain bi laaj service état yi laaj population bi ak gox ak goxaan yi maire yi ñu joxe xalaat joxe situation bi ñu xam ne juróom-ñaari gox yooyu ñoo gën a sooxe ci wàllu xale yi teel a dugg école am teel am lekk gu baax mais également ñu aar xale yi mais yéene bi gouvernement bi am mooy projet bii tey balaa juróom atee jeex sax bu ci partenaire yëpp jàppee comme ni ko président bëggee war nañ ko lawal ci Sénégal yëpp parce que projet bu am solo la li tax mu am solo ginnaaw koppar yu takk yooyu mooy gouvernement dañ taxaw tem ni ko président santaane pour lépp lu ñu def ñëpp lëkkaloo ci ku nekk bay ci waaram moo tax ministère bi yore wàllu njaboot gi Salimata Diop Dieng jiite ko moom mooy coordonné projet bi mais te ministère finance budget di saytu koppar mais kuréel yëpp dañ ci bokk Secrétaire général du gouvernement le bu malnutrition le ministère de ministère santé ministère de ci santé, le ministère de l'Éducation, ci ba kenn ku nekk am ci pour aller yi bu baax pour xale am juddu bu pour aller yi pour ñu Nous Nous yi. Euh, nous de parce que li ko nous am na ni projet bi ci texte. wala ci wàllu këyit loolu lañu ñu càmbar di ko waxtaanee tey ndaxte document yooyu tey ñoom buñ ko càmbaree ba xam li ci nekk yëpp dina gën a tax ñu rafetal seen lëkkaloo mais dina gën a tax ñu doxal projet bi ci doxalin bu mucc ayib dina gën a tax tam ñu mën a saytu li nga xam ne ni ma jën ci yorin bu mucc ayib ci bu ànd ak sellal muy bonne gouvernance dinañ ko tënk wàccoo ko ak ak projet bi loolu moo tax tam ci turu maral le ministre ñu ngi leen di ñaax ñu participer baax ci atelier bi mais surtout ñu leen di ñaax ñu fexe ba ñi gouvernement bi santé li ñuy wax approche holistique wala approche conjointe maanaam ñu xàccandoo dóorandoo mu bañ a nekk rek ay wax dañ leen di ñaax ñu àndandoo doon ci terrain bi ba buñ fa demee lépp lu war ci jumtukaay wala programme wala projet wala actif bu war jëm ci xalé yi ñom ñëpp ñu lëkkaloo andando jox ko xalé ba mat sëkk et xale yëpp dem jot ci ni mu waree ah voilà